te finalement histoire mujj na ma des jox raison parce que y a des milliers de jeunes yoo xam ne dañ fa mujj dugg ñu leen di toppee terrorisme même voie de fait dañ nga romb nit dóor ko dóor ko épaule sax ñun la terroriste xam nga loolu euh, nga def benn benn vocal wax ci dara ñun la terroriste nga te imaginer tey si tey bu fekkoon amul changement substantiel de régime tous ces gosses là ils vont pourrir en prison c'est sûr il y aura des perpétuités il y aura des yoo xam dinañ en prison mm. donc yooyu yëpp ay erreur la yoo xam ne dañ ko moo tax même travail intellectuel boobu dañ ko war di def di saisir les organisations est-ce que am ngeen benn réponse wala retour bu war a tax ngeen mën a yaakaar ne dina am une suite favorable. non effectivement dina ko am parce que xam nga xam nga xam nga mbir mi yëgle la rek ak yëngal. parce que boo xoolee d'abord première lettre bi bien avant sax c'était au niveau du Sénégal. Euh, mais le Sénégal n'a pas encore réagi. Mmh. n'est-ce pas les autorités n'ont pas encore réagi parce que interpellé ñu ba dafa ni ñuy wax la la la la ci sur commande ñu abroger la loi man nee naa leen loolu jarul sax abroger la loi d'amnistie parce que loi d'amnistie le droit international dafay interdire ñuy ñuy amnistier yenn crimes internationaux yi moom la ñuy wax même booy def engagement ci yenn euh, euh, traité yi mm-hmm. amuloo sax droit def ci réserve parce que ce sont des normes erga omnes des normes de jurisprudence yoo xam ne ça s'impose à tous tout ce qui touche à la dignité humaine tout ce qui touche droits humains tout ce qui au sang mm-hmm. yooyu moom doo laal mënuñu ko amnistier nest pas comme Sénégal ils ont fait une faute peut sur le plan interne mais wax naa léegi Sénégal dafa am compétence universelle mhm. kon mën nay ba pare dafa nekk euh, membre ci statut de Rome da ko signé te li nga xam ne cour pénale mën na ko juger Sénégal mën na ko mën na ko te cour pénale dañu la wax ci statut yi euh, la cour pénale elle est compétente lorsque les juridictions internationales sont défaillantes maanaam bu ñu demee ba juridiction nationale mënatuñ ko juger ci lañ koy jël donc bu ñu voté la loi d'amnistie ça veut dire que ne juridiction internationale yi mënatuñ ko juger donc daf koy faciliter mo faciliter moo taxoon man leen erreur la woon pour ñu dugal loi d'amnistie même même nee naa même les députés qui ont voté cette loi un jour ils devant le juge international. poursuivi pour complicité. pour parce que le fait d'effacer une parce que mën nekk comme si ils ont effacé une scène de crime. parce que loolu aussi euh, crime la beneen bi mooy même les juges yi nga xam ne doon nañu doon nañu jël yéen parce que boo xoolee l'affaire Mancabou y a des juges qui ont qui ont établi un de kii. Mm-hmm. après certificat de décès bi wane dafa suicidé wu or des gens qui amul enquête. n'est-ce pas juge bi def trafic boobu def falsification bi le moment venu mën nañ ko entendre. Mm. affaire euh, kii de Fulbert Sambou aussi ak Didier Badji. li ñu wax ne mënul juge bi bind euh, l'ancien procureur wane ne mënuñu si def benn autopsie alors que euh, médecin bi dafa ne rek xamul les causes de la mort moom foofu rek la yem yow nga yokk si def entre guillemets wane ne ni mënuñu sax def autopsie c'est-à-dire que mënuñu def autopsie. xam nga loolu du juge moo koy wax. du magistrat c'est un man loolu expert moo ko war a wax quoi. loolu expert expert médecin légiste moom moo koy def. Mm. donc enquête bi ba pare ñaar yooyu ñaari cas yooyu ñett yooyu sax François Mancabou euh, Didier Badji et l'autre là. ñoo ngi dugg ñu sur la loi d'amnistie. Mm. Mm-hmm. parce que keroog bi ñu jàppee Bah Diakhaté man dama bind benn article sax ñu pare à la une du journal man leen l'affaire Bah Diakhaté ça peut être un début d'une Euh, François euh, dans l'affaire Didier Badji et Fulbert Sambou mm. le soir même d'ailleurs ñoom ci la ñu porte comme léegi nag changement am na ñoom war nañu dem devant le procureur mu leeral n'est-ce pas parce que yooyu dafa dafa dafa dafa war a leer quoi parce que il il ne peut pas parce que dama dégg président de la République ñuy wax waxu indemnisation loolu dafa nar a jur coow parce que am nit ñoo xam ne dañu bëgg ku leen rétablir ci seen dignité maanaam nit ki nga xam ne dafa génn àdduna xam na ni doomam génn àdduna mais boo ko joxee xaalis dëgg la même l'islam sax dafa dafa prévoir indemnisation mais après justice d'abord il faut qu'il y justice parce que boo ko joxee xaalis ak nit ku ñuul ni mel danaan yow de yaa ngi mel ni ku ma joxaat sama doom ma koy lekkat il faut justice quoi entre guillemets justice bu amul réconciliation du du mën a am parce que si vous vous souvenez lors du procès Hissène Habré euh, devant les chambres africaines extraordinaires amoon na ay victimes yoo xam ni di nga gis koo xam ne ñàkk na huit membres de sa famille hmm. dañu disparaître mystérieusement mais dafa ñu ko rek yow prononcé wu rek nga wax même boo rappelé wul fee yi rek kon xam nga ça veut dire nit nit il est un peu humaniste quoi. Hmm. am na loo xam ne daf koy bàyyeek daf koy bàyyeek suñu borom xam nga justice bu mat yàlla rek moom moo am ñun ummatan wasata nag lañ mën le juste milieu. Hmm. donc yu mel noonu moom mooy tax doo ñëw rek tëb tëb ni indemnisation ba pare boo waxee indemnisation sur la base sur la base de quel budget nga koy indemniser beneen bi mooy dina am erreur. ci wàllu interprétation juridique parce que boo nee damay damay indemniser les victimes alors que à côté on a adopté une loi d'amnistie qui a tout effacé comme on a on, on a tout effacé il y a plus de victimes y a plus de victimes te le moment venu nit ñi dinañ def interprétation yooyu. Cheikh noo gisee procédure yi ñu sumb au niveau des. Euh...